fm FMI dina dugal xaalisam ci réew moo xam ne euh, dañoo campagner changement de de de de, de euh, une souveraineté monétaire est-ce que FMI dina dugal dina nangu sori Euh, ak Sénégal bu fekkee ne dañoo nar a matérialiser euh, cette promesse la est-ce que FMI dina nangu sori bu fekkee ne le Sénégal dans sa nouvelle politique posture euh, de politique étrangère mu ngi fricoter avec des pays de l'AES pays yoo xam ne seen point commun mooy ne ce sont des dig ce sont des putschistes ce sont des régimes ce sont des régimes putschistes mais mais je ne sais pas est-ce que suivre nga. président Diomaye ba mu demee ci dëkk yooyu yëpp je me suis dit que ni euh, on n'a pas bien analysé le discours de Diomaye benn moo leen wax ñaari kii yëpp CEDEAO ñoo ko moom loolu dafa amoon solo parce que AES <coughs> c'est pas viable. mais déglu nga démb réponse premier ministre malien bi. mais xam nga premier ministre bi xam nga xam nga. xam nga <laughs> c'est pas Assimi qui répond c'est le premier ministre a attendu que Diomaye parte euh, pour répondre à Diomaye. mais mais xam na ni. loolu ñu def c'est pas viable xam nga AES ba léegi ren Mali 1400 milliards la ko UMOA la levé ci UMOA daaw ren mu ngi commencé am problème au niveau de ces bons du trésor bu UMOA teewul jàppale ko les banques jàppalewul euh, mais ça va être compliqué parce que Mali tey mënuñu am 11 heures d'électricité par jour le coût est très salé li ñu li ñuy dund maintenant dañoo nekk ci zone moo tax mën nañoo génn euh, CEDEAO mais ñëwuñoo génn UMOA. xalaatuñu ko ah, voilà parce que dañ ne zone moo leen couvrir instant bi nii mais bu zone bi bañ a réagir c'est fini pour eux parce que ressource say ressource euh, dëkk boo amee. Euh, militaire yu demee noonu. instant bi investisseur duñ de duñ ñëw bu investisseur ñëw doo am devise. Euh, sa or yaa ngi jaay une partie Afrique du Sud une partie Suisse 1000 milliards Afrique du Sud 1000 milliards loolu nga am 2000 milliards yooyu nga am ci la troisième chose tey li mu bokk ci UMOA moo tax Mali saa yi soxlaa bu lancé euh, euh, bon du trésor banques yi ñuy banque yi ñooy répondre maintenant bis bu ñu doon génn ne dañuy génn dañu génn ci UMOA wala yu demee noonu xam nga dañu am seen monnaie bopp seen monnaie bopp ban valeur la am en dehors du Mali kenn dootul kenn dootul jënd seen seen don du trésor mais Sénégal Ousmane Sonko ba ba fi euh, Mélenchon ñëwee nee na on va faire une sortie prudente le mot prudente à son sens je pense que dëkk yooyu rek information jox nañu information que nii ñoom ñoo gën a tàng ñooy ay militaire mais ñemewu ñoo génn parce que couverture boobu lañ soxla gis nga am na loo xamante ni bis boo ko pertee boo demee deux mois trois mois ça va être très compliqué parce que dëkk yooyu Mali Guinée euh, yëpp fi ne ni UMOA la ñuy dundee couverture UMOA la ñu comme Grèce ni mu doon dundee ci les eurobonds parce que bu ñu créé eurobond sax c' presque comme pour les pays comme Grèce pour ñu bénéficier ci performance su yu demee noonu mais Mali tey euh, ba mu mujjee lance son bon du trésor de quatre vingt dix milliards vingt cinq quatre vingt milliards vingt cinq milliards la am. mais